शेरे काय मजेला सुन बगे jigéen ñi daw si leen gaaw si suñu boutique bi nga xam ne moom moo di Braya boutique ma ne ko fan la nekk ñu ne rond-point Case ba boo jugee croisement 22 rek da ngay jàkkaarloog ñun mbokk yi jaratul ngeen di daw di dem foofu nga xam ne moom moo di Petersen xam ngeen ne nag ñoom dañoo yaatal seeni ay mbir moo tax xale yu jigéen ñi ñoom la ñu taamu foofu boo fa duggee bépp biisu boo bëgg am nañu ko ma ne ko biisu plaqué yoo xam ne ni mu rafetee noonu la baaxee waa Braya boutique daal moom la askanu Sénégal taamu yéen yi te gëm naa ni sax ñun ngeen faral ñun ngeen gëm ndax suñu ay bisu plaqué kenn mësul gis yu mel noonu si mim réew bu fekkee ni da ngaa jóge si marché bi boo tourné si feu bi rek ñun ngay jàkkaarloo ah mbokk yi kon jaratul ngeen di dem foofu nga xam ne moom moo di Petersen li ngeen fa daan wuti yëpp indil nañ leen ko foofu nga xam ne moom moo di rond-point Kaas ba boo ñëwee dinañ leen ko jaay engrais te seen xol dina sedd di ngeen kontaan boo leen demee di ngeen del si waat Raya boutique xam ngeen la da ngeen may jox gaaw numéro téléphone yéen ndax ñi ma koy laajte ñu ne ma suñu numéro téléphone da ngay def 77 509 08 25 77 509 08 25 mbokk yi daw si leen gaaw fi nga xam ne moom moo di Braya boutique. fonkal ma say goro say njëkke say xaritu jëkkër. asalaamualeykum waa Sénégal asalaamualeykum waa àdduna ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm tey ñaan yàlla def jàmm ci àdduna bépp di remercier ñëpp ñi nga xam ni ne ñooy suivre suñuy analyse gis nañ appel yi message yi gis nañ lépp di kontaan bu baax a baax ci yéen alors tey waa Lu Xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo boo xam ni si ni suñu benn yaay boobu moo ko def ndax dañu dugal dem benn vidéo sunu benn sœur bu doon wax que ni dafa nekkoon nag benn nit ku ñuy woowee kilifa ci dëkk bi mu am jëf jum ko def réaction yu bëri nag génn na ci parmi réaction yooyu noonu dafa am sunu benn yaay boobu mu wax ci wax ju am solo wax joo xam ni képp kuy jigéen war nga ko déglu te bàyyi ci xel alors ñu bàyyi leen ngeen déglu li nga xam ni moom la sunu yaay boobu bi wax ñu dikkaat continuer waxtaan bi di leen rappeler aussi que numéro bii ngeen di gis mooy sunu service commercial képp ku am loo bëgg a publicité wala nga am sa histoire boo bëgg a jàllale incha allah mën nga ñu contacter ci numéro bi kon ñu déglu ko te di ko continuer waxtaan wi. salaamualeykum wa rahmatullah waa TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax waa dama doon déglu léegi benn audio euh, ci YouTube bi xale bu jigéen bi ne benn kilifa moo ko trompé gis nga xale yu jigéen yi le temps que ñu réglé réglé seen bopp c'est pas parce que ñu ne kilifa nga parce que kilifa. da koy doxee di ko waxee mais dul ne rek nit ñee la fa teg ñu ne kilifa nga déedéet dañuy gis kenn kuy dem rek xale yu jigéen ñi dañu waral rek le naan ca Facebook balaa ko xamee ca WhatsApp balaa ko xamee yooyu baaxul nga ne moom moo ko waxal boppam nee na fu ne nga jaar faak moom yow nit ki takku la fu nga ne nga jaar moom bés bu bàyyee nga torox même bu la takkee sax dina fekk doyal na ci yow xale jigéen yi il est temps que ñu réglé ku ñëw ne bëgg naa la moo xam kilifa la moo xam vagabond la moo xam lu mu doon nañ toog réglé toog seen wetu ndey ak seen wetu bàyyi tey dégg seen waxu parents yi ñun parents yi mag du yàlla mais dafa yàgg ak yàlla mag bu la nee subaa ngi ñëw nga ne tabaski la tu te trompes ñun yaay yi bu ñu leen waxatee ne leen régler leen seenum pecc nañ régler moo tax man de en tant que mère et parent dama ko liir sama yaram daw sama xol naqari il tant que ngeen vulgariser ko ñëpp dégg ko ñëpp yëg ko ah parce que gis benn waay rek naan kilifa la kilifa mooy lan kilifa daf koy doxe bee du du dul ne rek mu nga ca la yey wax wala sëriñ la am na kii taxul mat kilifa kilifa dañ koy dañ koy jëfe mais du du du du un ñu la koy waxal xale yi jigéen ñi nañ régler seen bopp dañoo bëgg sëy xaw lan moo leen jàpp ku ci gis rek koo gis mu ne kilifa la mu nga ca bi lii la tax yow fu mu la jaarale nga jaar fa lu nekk mu koy seex ak yow lu nekk mu koy def ak yow il est nit ñi xale yi amaat jom téyewaat seen bopp nañ takk seen sër bu mu dëgër bàyyi ñàkk fulla bàyyi ñàkk fayda wërsëg du maxe bu ñu waree sëy dinañ sëy bu mu tax ku leen ne nii rek ñu ne noonu la am na fi kilifa yoo xam ne na ma yàlla baal du ñu wax dëgg du ñu def yoon du ñu def lu baax ñu xam leen ñun ñii bu baax a baax a baax ñuy wax ca tele yaak yépp nit ñi di leen topp te ñun xam nañu lu ñu nekkee nekkeew ñu jàmm nekkeew ñu jàmm ak salaam ci ak xale yi xale yi ci seen bopp nañu gëm seen bopp te bàyyi yi ñuy def nañu réglé ki la bëgg a takk nee ko boo ma bëggee takk nga takk ma loo bëgg a xam ci man di nga ko xam mais yow takk goo lépp ci nit ki ñoom ñoom ils ont prêté le flanc koo xam ne ay ay ay fa ngeen xamante sax déjà moo lay wan ni kii matul kilifa ay whatsapp ak ay facebook ak ay kenn xamul il tànk temps que xale jigéen yi rek la nañu régler seen bopp man daal xale jigéen di laa incriminer nañ bàyyi kilifa la kilifa mooy lan kilifa ba ci am na ci ñoo xam ne kilifaantu la ñu ñu ngi ci këru diine yi këru diine yu mag yi waaw ñëpp xam leen te tekkiw ñu dara tekkiw ñu dank mbuum na xale yu jigéen yi réglé l'habit ne fait par le moine wërsëg du maxe ku ci war a sëy di nga sëy new fu mu nekk bu nëbee bu ñoree xeeñ nañ réglé te toog. donc mbokk yi ñun ñëpp ñoo déggandoo li nga xam ni moom la sunu yaay booy biy wax avant tout ñu ngi koy remercier moom bu baax a baax parce que mënoon na gis vidéo ba pare tànqamlu mais mu jël temps am yónnee message bu am solo bi dafa doon loo xam ne moom la ñuy xaar ci ñëpp. keneen ku ci am xalaat aussi mën nga ñu ko envoyé ci whatsapp bi. donc man damay appuyer li nga xam ni moom la sunu moment bi wax mooy que il est temps xale yu jigéen ñi tamit ñu xam seen bopp xam seen valeur wax ji may wax na képp ku mu laal maa ngi lay jégal bu baax mais dañu gis am na jigéen ñoo xam ni dañu bëgg tur dañu bëgg siiw waxuma ko nag pour kenn mais de manière général parfois da ngay gis jigéen ñoo xamante ni si ku am as tudd rek ñu langal la ko wala ku ñu gis tey jii nii yaakaar ne mën nañ am ci yow dara rek ñu langal la ko. et souvent ñi nga xam te ne ñooy def loolu ñu leen di woowee jigéen ñi nga xam te ne dañoo matérialiste d'habitude la plupart ay déception lañ ciy jëlee parce que déjà tromperie dafa bëri nit mën na ñëw dem louer oto louer costume louer lépp dikk di la gëm loo xamante ne si nekkuti moom nga topp ko ba ci biir nga découvrir que kii kat tanewu la alors que fekk na moom lépp lu nekkoon ci yow jël na ko nga commencé di réccu di de naan su ma yëgoon fekk wees na bu yàgg. ana lu gën a yomb tey toog sa wetu waajur comme ni ko sunu yaay boobu waxee rek wërsëg du maxe kenn ku ne li nga war a jot dinga ci jot ci kàttanu borom bi mais kenn ku ne boo toogee fi nga war a toog lépp loo war a am ci àdduna dina la fa fekk kon lan lañuy daw bay daan te man li ma jaaxal senegal chaque jour que jëfee da ngay dégg ay histoire yu bari loo xamte te ne ku ne war na ci mën a jàngate te bu subaa nga dégg bu ko gën a yéeme mel ni nit ñi léegi ñoom dañuy tànqamlu bu ñu déggee dara dal seen morom la ñu jël ci exemple jëm cee jàngat dañ koy dégg commenté ko pare nañ ji continuer nag di def lu gën a yées lool alors il est temps que ñu delloo ci xel yi bañ ji yàkkamti suñu àdduna xam ne lépp loo xamante ne si war nañ ko am incha allahu dinañ ko am mais dangay gis xale bu jigéen boo xamante ni si yow sax da ngay mujj waaru ci moom day dajale ay far yu bari ngeen baal ma nag surtout sama sœur yi nga xam ni dañuy jàng man li may wax nii dama ci gis ay kaa dañuy am far boo xam te ne day jaay jére far boo xam ne mooy jaay dàll kii mooy jaay saak kii moo yor moto bi nga xam te ne buy dem école borom moto bee koy jël yóbbu bu soxlaa yére borom yére yee koy jox bu soxlaa dàll nangam borom dàll bee koy jox bëgg a jël seen dund yépp wékk ko ci góor. ti tak moo fi am. et pourtant loolu ngay wëri tey yi di ko topp ci ay góor boo toogoon di nga am góor gu baax. bu la bëgg ñëw takk la li nga bëgg yëpp mu la koy defal fii ñaata jigéen ngeen fi gis ñu jël seen appartement amuñu jëkkër amuñu dara liggéeyuñu ñu gontuñu et pourtant chaque mois ñi nga am li ñuy fayee appartement bi ba ciy jël xaalis di yónnee seeni waa kër seeni yaay nekk ca dëkk ba yaakaar na ñoom ñi ngi liggéey di leen yónnee fekk wallaahi boo xamoon nañ amee xaalis boobu noonu di nga ko sa lekk alors il est temps que ñu changer yenn mentalité yi alors il est ñu changer yenn mentalité yi parce que souvent ñuy dund dund yooyu noonu ci déception la ñuy dëkk parce que kuy wër moom ku ne ngay taseel te parmi ñi ngay dajeel noonu mën nañ ci am ñoo xamante ne si nii baaxuñu loolu moo waral des fois ñuy dund yu metti yi waxuma nag pour kenn encore une fois dama wax de manière générale wax jii ñu fi wax nag képp koo xamante ne si nii laal na la ñu ngi lay jégalu bu baax xam ne liñ ci jublu mooy uniquement pour yeete parce que ñun jàpp nañu jigéen ñëpp suñuy sœur lañ suñuy yaay lañ suñuy bàjjan lañ suñuy tante alors képp koo xamante ne sunu message bi laal na la ñu ngi lay jégalu bu wér a wér a wér di tuub encore une fois di dellu di jégalu ñëpp liñ fi wax nag lu ci jub ngeen xam ne ndimbalu boroom bi la mais lépp lu dëng ngeen xam ne ci kiy wax la parce que doomu aadama moo matul di jégalu di ñaanal ñëpp jàmm di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah. yéen jigéen ñi daw si leen gaaw si suñu boutique bi nga xam ne moom moo di Braya boutique ma ne ko fan la ñu nekk ñu ne rond-point gaz ba boo jugee croisement 22 rek da ngay jàkkaarloog ñun mbokk yi jaratul ngeen di daw di dem foofu nga xam ne moom moo di Petersen xam ngeen ne nag ñoom dañoo yaatal seeni ay mbir moo tax xale yu jigéen ñi ñoom la ñu taamu foofu boo fa duggee bépp biisu boo bëgg am nañu ko ma ne ko biisu plaqué yoo xam ne ni mu rafetee noonu la baaxee waa Braya boutique daal moom la askanu Sénégal taamu yéen nettali te gëm naa ni sax ñun ngeen faral ñun ngeen gëm ndax suñu ay biisu plaqué kenn mësul gis yu mel noonu si mim réew bu fekkee ni da jóge si marché bi boo tourné si feu bi rek ñun ngay jàkkaarloo ah mbokk yi kon jëratul ngeen di dem foofu nga xam ne moom moo di Petersen li ngeen fa daan wuti yëpp indil nañ leen ko foofu nga xam ne moom moo di rond-point Case boo ñëwee dinañ leen ko jaay engrais te seen xol dina sedd di ngeen kontaan boo leen demee di ngeen del si waat Raya boutique xam ngeen lan da ngeen may jox gaaw numéro téléphone yéen ndax ñi ngi koy laajte ñu ne ma suñu numéro téléphone da ngay def 77 509 08 25 77 509 08 25 mbokk yi daw si leen gaaw fi nga xam ne moom moo di Braya boutique. fonkal ma say goro say njëkke say xaritu jëkkër.